li delloo caabi yi euh, doonoon euh, baax peut-être moom euh, bu fa woon ma gën koo mën a faram-fàcceel li nga xam ne moom la ñu fa def ndax li ñu war a xam nag mooy administration dafa évoluer ah du yàgg a yàgg a yàgg lépp a nga foofu système bi dañ ko informatiser daanaka loo ubbi rek léegi mu ngi ci mu ngi ci informatique boo xam ne bi moom ngi ñu fa installé Euh, waaye nag euh, informatique moom du doxal boppam du waxal boppam foog ngeen toog euh, ak ñi nga xam ne ñoo ko doon liggéey ci jamono ji ñuy waxee ki nga xam ne mooy suma ancien directeur administratif et financier ma nga fa di def passation ak directeur administratif et financier bu bees bi ci jamono ji ñuy waxee loolu nag waroon nañ koo mën a def ca njëlbeen waaye nag malheureusement dañu leen a joxoon not ne leen mën a tudd dugg ci conseil bi waaye loolu jàll nañ ko ndax conseil économique social et environnemental du institution politique institution administrative la boo xam ne day xelal état war nañoo mën a même bu fekkee ne équipe bu bees a ñëw ñi nga xam ne ñoo fi newoon ñu expliqué ñu bees ñi ñi nga xam ne moom la ñuy doxale document yëpp ñu ngi sur place nouveau président bi keroog ñu may dam bu ñu rek lépp dinañ ko ko wan parce que lépp a leer foofu waaye lépp nag informatique ci ëpp

Euh, li leer te Sénégalais yi wan war koo xam lépp nga ko euh, liggéey dafa am na ñu tëddee euh, liggéey bokkul ak politique dañ jël politique bi tekkee ko nale jël xool liggéey bi ni ñu koy defee kon tey au moment bi ñuy wax nii ñaari daaf yaa ngi def passation waroon nañ koo def bu yàgg waaye comme huissier daanaka bañ yeggtee dañ leen ne mun leen a dugg tey la suñu daaf bi nga xam ne moo doon liggéey ak man mën a mën a yegg si Euh, di la joxe information yi parce que lépp tamit ci ordinateur léegi affaire ordinateur la dootul ay kayit yoo xam ne euh, maanaam day fichier ak yooyu loolu nag euh, def ko dool loo xam ne lii man loolu laa xam ci wax yooyu ndax dama yàgg liggéey dama mën ci liggéey kon kooku amul benn problème boo xam ne di war na faa mën a nekk wala liggéey bi ñuy def sax dañ koo bokk ak conseil yi nga xam ne ñoo fa nekk benn di saytu li nga xam ne conseil

ni nga xamne non lay defe won conseil bi nonu la ko defe ci digënté bi ci bari dañ ko informatiser informatiser moy gëdel information def ko ci machine waye machine bi mënu la waxal bopam bu fekkee ni ñi daan liggéey ak man dañ leen mënu ci leen dugg fi ah mais do gis ko la expliquer loolu it am na solo mais procédure dañ ko top ba ci ñu wara a parce que foofu aussi amoon ci ñu wax euh agent comptable public ki nga xamne moy représenter ministère des finances moom mooy topp woor mu wóor ko ne xaalis bi nga xam ne moom la ñu utilisé ma nga fa moom bi mu defee passation ndax ba mu ko jógee yàggul euh, këyit yu leer a nga fa waaye nag balaa nga naan naam ne fa euh, léegi nag euh, comme comprendre nañu ne fokk ñooñu ñëw waxtaan ak équipe bu bees bi dinañu am information yi waaye da ñëw rek mais ñëpp dem déedéet du noonu administration dafa am na ñuy liggéey boo xoolee ci dëkk yu ne administration ba fa nekkoon ak sa cadre ya fa nekkoon avant ñuy dem da nga leen di may ñu toog ak yow say nit ñu bees ni expliquer leen ni ñuy def sa liggéey waaye ni ma la ko ah dañu ñëw euh, ñu ne leen non non non yéen da ngeen a war a dem toog seen kër yi mënatu sax dugg ci biir conseil waaw ah, boo ñëwee donc su la expliquer euh, président bu bees bi bu ñëwoon toog ak man looloo ba a rafet la yow kon ma expliqué ko bu baax a baax euh, ni mbir mi demee parce que moom nag def naa xaw naa gëj a liggéey ci diggante bi liggéey dafa dafa évolué Euh, voilà loolu euh, noonu lañ ko war a jàppee euh, teg politique bi fële parce que institution boo xam ne bi nga am na solo ci xalaat ci wàllu xalaat waaye nag liggéey dafa am yoon liggéey dafa am nu ñu koy jaarale ba nga xam ne bi yow boo ñëwee bees foog nga toog ñu expliqué la nu mu demee surtout bu fekkee ne gën ngaa liggéey ñu wax la ni nga xam ne nii noonu lay jaare waaye ñi la war a waxal bu fekkee ne kii génn ak ah, ba muy génn façon yéenee dalal la wax expliqué na la li mu wax gisu la ña xam ne ñoo doon liggéey moom aussi ñu ne noonu bu doon yegg ah, bu ko defee nag euh, bu teel a fax day xaw a jafe waaye waxtu bi may waxtaan ak yow bii ah woowaat nañ ki nga xam ne moo doon directeur administratif et financier war lay def passation ak ci benn ci fi ñëw xool nag mënoon nañ ko def fan yële euh, waaye li ëpp solo rek mooy euh, institution bi nga xam ne di def liggéeyam ndax ñu ngi ci depuis mille neuf cent soixante trois li sa wàll def nga ko parce que euh, wax ji leer na mom limu wax moy kiko ko waxul lu mu fi fekkoon waxul lu mu fi bàyyi donc yow lay wax est-ce que précisément yow sa passation yaakaar na ni lepp matalon nga ko pour jox ko la ngay am déet. ah lepp nga fa lepp nga fa waye nak comme gisuma ko moom pour jox ko ko. Euh, moo doon gën bu ñu ma jox ko ko expliqué ko lu mu ci comprendre. expliqué ko ko ba mu leer euh, looloo tax ni def passation waaye jàppoon na ni amul solo waaye loolu sax amuloon solo bu fekkoon ne ñi nga xam ne ñoom la ñoom laa doon liggéeyal newuñu leen woon bu leen dugg ci ci ci ci conseil bi ba teg fa ay gendarme leen waru leen a war a yegg loolu erreur la ndax ñoom ay ay fonctionnaire rek sax la ñu dañuy dañ ku ñëw rek ñu liggéeyal la comme léegi loolu am na moom dinañu expliquer ki nga xam ne moo yore mbiru administration ak finance expliquer ko ni ordinateur yi di fonctionner logiciel ba fa nekk bu ko defee ñoom ñu continuer liggéey

administration bi lépp nga fa mais noonu la ñu doxalee conseil bi ba mën a am résultat yi nga xam ne am nañu ci kooku moom amul amul lenn ñu ci naatable amul information bu mu fa soxla ma nga fa euh, donte gisuma parce que ñëwul woon waaye ku mu ko fa laaj ma nga fa parce que yëpp nag ci ordinateur yi la ñuy la ñuy léegi ci ordinateur la ñuy liggéeyee léegi am na am ordinateur boo ko am ko bu fekkee ne ka yor toog ba nee nga ko bul yegg mais doo mën a jàkkaar formation waaye yàlla def na li ngay def seen passation tey euh, te dina continuer politique moom nañu ko tegenale waaye liggéey dafa am tàq dafa am yoon muy Amérique muy France muy Sénégal muy Burkina Faso dafa am koy tërale ñu tuddee ko procédure administrative loolu nag foog nga xam ko parce que day évoluer voilà kooku amul benn problème information yëpp nga ko man dama yàgg liggéey dama liggéey ci organisme internationaux yoo xam ne yi xam nga ne dañ lay saytu moment tout moment dañ lay saytu voilà kon kooku euh, vraiment du du ma koo xam ne kii vraiment dañ lay jàngal liggéey ci at yi ma am ak ci expérience bi ma am waaye nag day fekk nag aussi ki nga xam ne dañ ko war a jox information ah mu nangoo ñëw <laughs> ba noppi bàyyi ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ñëw dal di jox information yi ñu bees ñi nga xam ne ñooy ñëw tey def naa ne euh, loolu am tey may wax ak yow nii nii nii nii suma ancien DAF mu ngi enfin mën a def passation ak son nouveau ak le nouveau DAF

foog nga yëkkati sa bopp bàyyi politique bi da ngay liggéey ci toll nii li ñuy xaar mooy liggéey jël politique bi teg ko nag moom bu ñëwoon ni ma ko waxee toog ak man ma expliqué ko dafa gëj a liggéey nag loolooy problème liggéey dañ naa liggéey liggéey léegi dootul wax rek da ngay ñëw toog xool kayit yi xool ni nga war a plani defee planification xool ni nga war a liggéeyal bu ko defee mu jaar yoon loolu bu fekkoon ne toog nag man danaa ko wax mais na jël enfin politique bi nañ ko

comme dañ ma interpellé jaar ci suma tuur il fallait ma réagir waaye yàlla xam na ne vraiment bëggoon naa jël recul ci loo xam ne nii géré woon naa ko keneen ñëw di ko continuer ndax état noonu lay dox dadul moment boo xam ne bii moom polémique la waaye bon dinañu ko yónnee ñëpp ñi nga xam ne ñii ñoo doon liggéey buñ leen bàyyee ñu ñëw rek nekk expliqué di liggéey ku bi di liggéey nag aussi loolay problème bi da ngay defe ne ko nga bàyyi woon liggéey fukki at ak juróom ñaar fa la àddina toll déedéet léegi ci ay ordinateur lañuy liggéey ci ay logiciel la ñuy liggéey ne loolu yëpp foog nga toog ñu expliqué lu waaw bu newoon keroog kon ma expliqué ko ko ay ñëwutoon euh, léegi nag euh, ñi nga xam ne ñoo ne woon ak man vraiment maa ngi leen di encouragé ñoom ñëpp bu ñu leen wooyee ñu dem def wala vacation bi ni mu amee nii ni ma ko waxee bu ko defee institution bi continuer euh, ñu génn ci politique bi ndax foofu nag ñu am solo ñoo ko toog seen xam-xam màccee na ci mbéy ci napp ci médecine ci architecture euh, avocat yaa nga fa notaire yaa nga fa xaw xam-xam lañ koy discuter discuter wuñ ko politique politique nag bu ñu génnee euh, loolu war nañ koo mën a defal